Boubacar Samb maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Boubacar euh, Samb nga nekk euh, délégué national à l'engagement citoyen coordonnateur départemental de Pikine bu mouvement Gëm sa bopp euh, naka nga apprécier conférence politique bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko di leader u Pastef nekk également premier ministre du Sénégal. ah Ndeye Comba di ci am une désolation rek par rapport ak liñ fi dégg démb ndaxte lim doon wax. démb nekkoon na lépp luñ doon xaar ci moom sauf ay menaces aki i xuppatal ndaxte yaakaar naa bu ñu combattre régime Macky Sall parce que Macky Sall demoon na ba toll si naagu di menacer nit ñi di xuppal nit ñi te yaakaar naa euh, ku euh, ñàngalu gaynde saful ñàngalu muus la saf donc c'est c'est malheureux quand même euh, premier ministre mu toog sénégalais yëpp di ko déglu muy menacé waat. Euh, ñu gis ni aussi aussitôt bi mu génnee wax euh, réplique gu Bougane Gueye Dany am na parce que Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom aussi euh, ñi ngi wax ni PM bi fi mu toll nii dafa war a sóobu si liggéey bi au lieu que muy taxaw di di menacé naka nga gisee sortir sa leader Bougane Gueye Dany. mais Ndeye Comba le président bu deful woon sortie boobu sax. sénégalais yi ci boppam ñoo koy demandé à ce que mu wax parce que ñëpp ngi doon wax Bougane lan moo tax waxul lan moo tax waxul mais lu waraloon loolu du leen lu dul dafa am nguur bu ñu teg jox ko ne doxalal ñuy xaar nag ñoom ñu doxal mais malheureusement li ñu gis nii mooy ñoom dañoo am problème pour doxal maintenant fan lan lañ mën lan lañ bëgg a def mooy divertir sénégalais yi. indil leen ay mbir yoo xamante ni amul bopp amul genn tey jii nii fi ñu doon xaaree le président euh, le premier ministre Ousmane Sonko moo doon li président Bougane wax mooy mu apporter des solutions euh, si problème mu sénégalais yi dañoo sonn sénégalais yi dañoo ñàkk sénégalais yi dañuy bëgg a dund te duñ ko def donc tey jii nii buñ fi jëlee ñi fi nekkoon tey indi leen xaaruñu leen ci ay wax dañ leen xaar ci ay jëf boo nekkee nag ci opposition mën nga nekk di promettre di promettre mais buñ la joxee nguur bi tey li ñuy xaar ci yow mooy nga jëf te ñoom nag dafa mel ni problème mu jëf lañ am. est ce aussi Bougane se sent menacé maanaam kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko est ce que Bougane gisu si boppam ci côté presse bi presse bi nga xam ne dañoo fare benn côté mais aussi si wàllum fay euh, fiscalité est ce que taxul loolu moo waral mu daal di tontu nu mu gën a gaawee Ousmane Sonko. absolument pas absolument pas donte ni kenn mënul génne Bougane ci presse parce que journaliste la c'est son métier mais. dafa dafa nekk koo xamante ni moom la euh, nit ñi doon xaar mu wax te lu tax nit ñi doon ko xaar mu wax parce que dénkuñu ko état waaye fi mu féete nit ñi état état bi féetewu fa nit ñi donc tey Bougane amul problème pour fay ay impôt ma wax la ma sàcc wax la ni la mm-hmm. tey ñoom ñi nga xamante ni euh, ñoo soulever problème mu impôt yi mais dañ doon xeex Bougane Euh, si côté état opposition tamit di ko xeex mooy parti bi nga xamante ne ñoo nekk Pastef ñoom ñi nekkoon ay inspecteur impôt yu domaine te ki def audit boobu noonu di président Bassirou jomay fay mi toog donc ñoom liñ doon def lépp c'était pour combattre le président Bougane mais nag yàlla noppi na démb. aussi si wàllum reddition des des comptes euh, maanaam ñi fi nekkoon naka la ñu yoree woon lañ leen dénkoon euh, PM bi nee na lancé nañu ay audit euh, bala yàgg dara résultat yi dana génn. waaw léegi ñoom comme que effet de d'annonce daal lañ aay. ñun ñu ngi leen di xaar si jëf. parce que ñoom ñoom tant que jëfuñu. ñun mënatuñu prononcé wu si seen si seen ay wax. parce que gisaguñu ñu teg benn acte. déppi boobu ba tey lu dul wax defuñu ko te comme que ñoom nag loolu mooy seen euh, point fort ñun ñu ngi leen xaar si jëf bi nee nañ nee nañ def nañ ñu ngi xaar résultat yi comme que nee nañ semaine bii nii lépp dina leer ñu ngi leen déglu. wax na aussi Ousmane Sonko ci ci presse bi euh, presse bi nga xam ni peut dafa féete boor euh, presse bi nga xam ni souvent dañuy génne euh, xabaar yoo xam ni wérul wóorul ku ko fi euh, defati da nga dem ci kaso bi naka nga gisee kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko euh, ba presse bi yëpp fi ñu nii di ko ŋàññ. xam nga Ousmane Sonko moom day ruy laax bi ba pare nëbb koo ne kenn du ko fi lekkee moom loolu mooy problème parce que foofu mu taxaw di ŋàññi presse bi di lañ menacé kat di wax lu ne naan ay dañuy ressourcé wu ci internet ak lu lu mu mun ci doon mais moom taxawaat na beneen bërëb mu ne li muy tuumaal ma Mbaye Niang ci internet la ko jële léegi moom lan moo tax démb wax jooju valable pour moom tey wax jooju noonu du valable pour keneen gis nga nit ñi buñ lay fontoo nañu respecté nit ñi il faut qu'on respecte tey moom lu mu waroon def mooy sargal presse bi parce que tey bu desee ak bakkanam ba tey presse bi ñuy joué nañ ci parti bu bu bu bu am solo dañ fàttaliku ni am na ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen cër ci presse bi si ñoo xamante ni couvrir euh, moom li mu doon def moo leen ko yóbbee ay bakkan rot na ci donc moom tey yaakaar naa lépp la waroon def ba mu des ay menaces presse et c'est désolant quand même beneen ponk aussi bu am solo euh, nee na pour euh, justice moom boppam euh, ñoom daañu segg magistrat yi xool ñi nga xamante ni mooy magistrat yu boni sànni fële jël ñu baax ñi ñu doxal naka nga gisee kàddu yooyu xam nga boo nekkee ñu jox la pouvoir ngay waxee ni opposition ça veut dire que ni mbir yi ba doxagul ça veut dire que ni mbir yi dara doxagul lëpp a tax tagga témbe parce que bu fekkente ni tey jii ni mbir yi mu ngi doon dox yaakaar naa dina am beneen discours bu dul ay nañ segg ñu baax ñeeg ñu segg ñu bon et c'est c'est malheureux quand premier ministre taxaw di wax euh, euh, mooyu mel noonu mel ni comme moom nu mu koy waxee ay opposants c'est c'est dommage quand même beneen ponk bu am solo aussi ñuy euh, xaar balay yàgg dara Ousmane Sonko wax na si euh, maanaam wàññi dund gi nee na jël nañ ay mesures te balaa yàgg danañ ko fësal euh, pour dund gi wàññeeku est-ce que am nga yaakaar si mbir moomu waaw wala déet que régime mu Diomaye mën nañ wàññi vraiment dund gi. ah man de ak sama akulaay taala loolu laa lay ñi ñaanal ndaxte sénégalais sonn nañ trop. nday kumba ba fii may wax ak yow. Mm-hmm. nit ñaa ngi ñuy woo. nit ñaa ngi suñu kër yi ñi nga xam ne ñoo dëkk si banlieue bi pour rek di ñu solliciter du ñuy régler seeni i dépense su bés. lu ñuy régle seen ay location tey bu dee état apporter na des solution par rapport ak mbir moom je pense bien ñun dinañ mën a noyyi dinañ mën a am xel mu dal ba xëy na sax ñu ñuy mën a di dimbali. ci as tuut bi ñu yàlla bu euh, jox mm-hmm. xëy na du du du du takku ndaxte sénégalais yi ñoom ñëpp muy man di sama moroom ku si nekk soxla nga tey ay solution mais ba fii nii ñu toll ñii nii ñu teg si bopp réew mi indi lu ñu ñu benn solution lu dul wax te xaaruñu si ñoom loolu mais daal ñu li ñuy ñaan mooy que ñoo ñoom ñu indi solution par rapport à ça parce que nag sonn nañu muy man di yow di suñu ay morom sénégalais yi ñëpp a sonn tel nag ñu fàttali leen ni loolu moo tax ñu jëlee fi ñoom Macky Sall aussi beneen ponk bu ñu dégloo premier ministre Ousmane Sonko dafa mel ni désormais faaw sénégalais yi euh, commencé am culture fay impôt muy sénégalais lambda bi muy chef d'entreprise bi naka nga gisee euh, déclaration boobu. te loolu ñun ñëpp ci d'accord loolu ñun ñëpp ci d'accord mais mais tamit ñoom foog ñu xam ni euh, yor réew yemul rek si dajale fiscalité wu réew mi fiscalité réew mi mënul couvrir dara ci réew mi réew dafa am ay ay ay mbir yoo koy doxalee dafa am ay lijjanti yu koy doxal mbir dafa euh, euh, nit mënuloo ñëw bëgg pouvoir bëgg nguur gi dox sans pour autant nga am plan nga am vision ñoom nag loolu moo leen manqué moo tax il nous parle de euh, projet projet alors que projet bi du lar dara du dara lu dul ay verbe kese. pourtant projet boobu Ousmane Sonko nee na ñu ngi koy bind bala yàgg dara euh, danañ ko euh, présenter Sénégalais yi ñu ngi koy bind pareeguñu. xam nga loolu mooy arnaque bi parce que tey jii nga toog di jaay benn projet. alors que projet boobu noonu existé wul ci dara loolu mooy arnaque du siècle parce que fi ñuy doon waxee nii projet bi waroon na nekk loo xamante ni dañ ciy duut baaraam démb dégg naa ko mu ne PSE du un bon plan waxul dëkk PSE c'est un bon plan problème bi moo doon ci doxalin bi ak ña doon doxal ñooñu ñoo doon problème bi mais PSE c'est bon plan. ñu ngi lay remercier bu baax a baax Boubacar sàmb ci nangoo tontu bi nga xam ne nangu nga ko tontu suñuy laaj. ñoo ko bokk Ndeye Comba. voilà Boubacar c'est Samb ñuy fàttali ni yow yaay délégué national à l'engagement euh, citoyen coordonnateur départemental euh, de Pikine bu mouvement Gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany jërëjëf Boubacar Samb.